salaam mbokk yi safo Info7 TV maa ngi béggee ñëpp di ziar ñëpp di ñëw gën si information tàggat yaram yu gën a fas si journée tay bi tombé le mercredi 29 juin dañ koy commencé foof sa Chelsea Chelsea ñu ngi waaj a fa Raphinha si loxo yi Arsenal ak Barcelone ñaari club yooyu nag ñoo nekkoon si dossier Raphinha waaye Chelsea nag dugg nañ si lu yàggul dara ba jot nañu am accord ak Leeds United kon déggoo nañu ak Leeds pour transfert Raphinha ñu ngi déggoo si somb toll si diggante 60 ba 65 millions suñu sukkandikoo si information yu journaliste bi di Yafa Bisono maanoo joxe Arsenal jokkoon nañu def offre waaye Leeds United dañ ko dàkk Barcelone tamit ñu ngi na waajal seen offre waaye daal offre bu Chelsea teg ko moo ëpp moo tax ñi di waa Leeds United nangu ko. ba léegi ak Chelsea la ñuy des Chelsea beneen club bu mu déggool mooy Manchester City pour transfert Raheem Sterling foofu sa Chelsea kon ñaareelu offre bu Chelsea def ñii di waa Manchester City mujjee nañ ko nangu ba déggoo nañu si ay kàddu ak équipe bi di Manchester City. agent Kalidou Koulibaly mi ngi woon na foofu sa Londres démb pour euh, waxtaan ak euh, waa si pour euh, transfert Kalidou Koulibaly waa Chelsea ñoo intéressé aussi kii di Kalidou Koulibaly ndax yeneen naa ñaari défenseurs yu ñu bëgg a recruter dañoo xaw a cher muy Milan Skriniar ak De Ligt luñ siy laaj dafa bëri moo tax nag ñu dëpp carte yi ñëw si kii di Kalidou Koulibaly pour jéem a laaj ay renseignement si moom Kalidou Koulibaly benn naatu contrat moo ko dese ak Napoli kon lu muy jar du ko tax a bari ñu jàll foofu sa Arsenal kii di Gabriel Jesus def na visite médicale ba pare euh, docteur yi saytu nañ ko kon na lépp jaar na yoon dina signé ak Arsenal contrat wu juróomi at. ñu jàll foofu sa Manchester United kii di euh, Frank de Jong jamono mi ngi gën di jege équipe di Manchester United ñu ngi wax ci euh, transfert bu toll ci 65 millions d'euros ak ay bonus Manchester United. am na accord ak club yi di ya Feyenoord pour transfert latéral gauche bi di ya Tirel Malaysia kii di Tirel Malaysia nag jotoon na waxtaan ak Lyon ba déggoo ay kàddu waaye Manchester United ñoom ñoo dugg si ci dossier bi jaxase carte yi transfert bi ñu ngi koy xayma ci diggante 15 millions d'euros ak 2 millions d'euros bonus loolu la Manchester United mujjee déggoo ak Feyenoord kon daal la kii di Malaysia moom moo war xool. si diggante club yu ko soxla yëpp fan la si war a war kon daal uh, Manchester United ak uh, Feyenoord ñoom daal am nañu accord jamono yi si uh, jour bi la des. Paris Saint-Germain def nañu offre bu toll si dix millions d'euros pour signer kii di Renato Sanchez Renato Sanchez moom tamit bëgg naa signer ak Paris Saint-Germain. kon su fekkee nag Lille nangu na offre Paris bi kii di Renato Sanchez mun na nekk joueur Paris Saint-Germain ba léegi ak la ñuy ay eh, jegeñaale Neymar junior léegi nangu nañu Neymar jógee Paris Saint-Germain waaye lu bëgg mooy eh, Paris Saint-Germain fay leen eh, salaire bu des si contrat am maanaam daal contrat am du at yu si des yëpp dañ leen koy fay si salaire loolu la papa yi Neymar junior bëgg mu toll si deux cent millions d'euros kon loolu la waa ay jegeñaale Neymar junior di xaar si waa Paris Saint-Germain pour seen joueur bi mën a dem. ba léegi euh, France la ñuy des kii di Wabi Kazri nekk doomu Tunisie nekkoon foofu sa Saint-Étienne signé na ak club français bi di euh, Montpellier. beneen signature bu officiel muy Takumi Minamino jóge na Liverpool signé ak euh, Monaco transfert bi dikkee na Monaco million millions d'euros ak 3 millions d'euros bonus. kii di Karius bi nga xam ne Barcelone da ko woon si contrat am signé na ak Auxerre ñettaatu contrat. Axel Witsel ak Atlético de Madrid mujjee nañu juboo waxtaan waxtaanuñu ba déggoon si ay kàddu kon na kii di Axel Witsel léegi mu nekk joueur Atlético ñuy fàttali ne Axel Witsel jotoon na waxtaan ak Olympique de Marseille ba jege woon pour signer fa waaye Atlético de Madrid ñoo mujjee dugg si dossier bi ba ñu ngi koy waaj a signer FC Barcelone ak Valence am nañu accord maanaam waxtaan nañu ba jiboo si xaalis bu toll si 20 millions d'euros pour le transfert u Carlos Soler foofu sa Barcelone Carlos Soler jotoon na waxtaan na ak Barcelone ba déggoo ak ñoom semaine yii la ñu génn kon nag Barça mujjee naa déggoo ak Valence kon Barcelone fekkee nag fay nañu vingt millions d'euros yooyu Carlos Soler mën na doon seen jour lu yàggul la dara suñ sukkandikoo si information yu AS joxe. Lorenzo Insigne mi nga xam ne annoncé woon na départ am foofu sa Napoli démb présenté nañ ko foofu sa Toronto FC nekk si championnat États-Unis kon léegi euh, officiel na jouru Toronto la. Xavi Simons bi nga xam ne dafa waroon prolonger contrat am ak Paris Saint-Germain ngir ñu abale ko foofu sa PSV Eindhoven moo ak euh, dañoo mujjee waxtaan si leneen muy ñu dagg contrat am ngir mu mën a signé ak PSV kon léegi PSV annoncé nañu signature Xavi Simons ba 2027 gannaaw bi nga xam ne libéré nañ ko contrat am sa Paris Saint-Germain ñu jeexale ak cérémonie de lancement bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofu sa stade Léopold Sédar Senghor démb kii di ministre des sports Matar Ba moo jiite cérémonie boobu moom nag joxe na si ndogal pour ñu defaraat maanaam pour ñu yeesalaat ñeenti stade si biir Sénégal muy stade bii di le stade Léopold Sédar Senghor stade a Sitoé Diatta bu Ziguinchor stade Lamine Gueye bu Kaolack ak stade Elimane Fall bu Diourbel kon ñeenti stade yooyu la ñu war a yeesalaat xaalis bi yëpp suñ ko boolee dina doon 40 milliards de francs CFA muy 40 milliards suñu xaalis kon 20 milliards yi dinañ ko yeesalaatee stade bii di Léopold Sédar yeneen 20 milliards ñu yeesale ko ñett stade di stade Aline Sitoé Diatta bu Ziguinchor stade Lamine Gueye bu Kaolack ak stade Elimanel Fall bu Diourbel